par rapport ak euh, li nga xam ne moo fi amoon euh, nit ñi def ko hors du jour muy problème mu ay nervi yi dañu jël dañu recruter ay nervi yi dañ doon doore donc ñun en tant que spécialiste euh, sécurité liñ ci xalaat mooy des fois nit ñi dañuy am duñu am duñu mën a différencier parce que tout le monde est expert ci domaine yëpp loolu mooy esprit sénégalais sénégalais moom fépp la aay quoi te ku ci nekk da ngaa am loo xam ne ni mooy sa domaine. mais booy dégg nit ñi di wax. des fois dañuy wax la nga xam ne duñ ko di maîtriser à cent pour cent. wala dañuy wax wax boo xam ne nii li leen arrangé la ñuy wax bàyyi li leen li nga xam ne nii da leen di déranger. mais par rapport ak loolu bu ñu ci ñëwee loolu c'est une sécurité mobile c'est-à-dire dispositif de sécurité mobile mënul yem ak un dispositif de sécurité immobile euh, ci protection rapprochée maanaam ci muy euh, sécurité mobile bi nga am sa VIP yaa xam euh, c'est le président c'est le ministre c'est le directeur wala c'est le journaliste ak ku mën a doon ci dispositif garde rapprochée dafa am ce qu'on appelle le pyramide de Maslow donc pyramide bi dafa am niveau un ba niveau cinq donc niveau bu ci nekk dafay am benn dispositif de sécurité booy war a mettre en place. Euh, parce que selon risque bi nga xam ne nii mën na ci am. donc ci ci ci ci ci ci ci ci ci dispositif boobu aussi risques yi day évoluer cest à parce que c'est c'est un dispositif qui est mobile. ki ngay àndal muy kilifa gi ngay àndal. day progresser buy progresser risque bi mën nga toll ci benn benn étape. par exemple yaa ngi dakaar le risque est faible. mais boo xasee booy dugg Thiès. Euh, risque bi dafay daf y a des menaces donc il y a des obstacles le risque peut être euh, au point rouge ou bien au point orange léegi nag foofu lan nga war a def mooy li indi souvent euh, pour pour pour pour, pour souvent lii indi ay ñuy tudd nervi yi wala gros bras mooy euh, le système de prévention cest à dispositif de prévention boobu ñuy jël par rapport ak risque li nga xam ne mën na ñëw ñëwuñu day ñëw forcément mais mën na ñëw donc bu bu fekkee jëloo dispositif boobu euh, loolu di war loolu nga jàpp ne mën na ñëw bu ñëwee dafay am leneen lu muy lu muy def loo xam ne muy gën a garaaw li li li ñu jàpp yi dañ koo def. donc foofu euh, ñi ngay utiliser aussi parce que ci sécurité que ça soit la sécurité mobile ou la sécurité immobile euh, dafay am li ñuy wax ñetti périmètre dafay am. barrière de sécurité la zone tampon mu am loo nga xam ne dañ koy wax la zone d'attaque et la zone stérile que ci ci yëpp bu ci nekk nag dafay am benn dispositif booy jël bu fekkee ne ci ce qu'on appelle la barrière de sécurité foofu ngay placer souvent les les nervis ou li nit ñu tuddee nervis man du ma ko tuddee nervis gros bras c'est-à-dire pourquoi loolu ñooñu lan mooy seen rôle seen rôle mooy par exemple euh, tey si on prend que ça soit le président ou keneen ku mën a doon buy déplacé wu ñu jàpp ne dafay am foule mën naa nekk foule bu ànd ak moom comme mën naa nekk foule bu bañ ànd ak moom ci ñooñu dangay soxla ñi nga xam ne nii tey du du parce que ki nga xam ne day gérer une institution c'est-à-dire il incarne une institution dangay am droit dangay am obligation pour di ko protéger institution c'est pas la personne en tant que telle mais institution bi muy incarne il faut nga protéger ko donc su fekkee ne même ñi mu àndal euh, amour bu ñu am ci moom mën nañ ko mën nañ koy jegeeñ ba mu am leneen lu mu jur euh, ñi nga xam ne ànd ñoo moom aussi mën nañoo def leneen da ngay soxla benn zone tampon boo xam ne mooy nekk entre euh, population bi ñëw envers lui pour mën a indi désordre ci ci ci ci ci dispositif bi nga xam ne ñoo koy protéger dafay laaj nga am une zone tampon zone tampon bu mooy la la barrière de sécurité ñooñu da ngay soxla ay ñu am kattan mais ñooñu lan mooy seen liggéey ñoom aussi waruñoo nekk ay nit ña nga xam ne nii dañuy nekk en position d'attaque mais en position défensive la ñuy nekk c'est-à-dire bu fekkee dafa am ay nit ñu ñëw war a approcher ci la zone d'attaque muy deuxième ligne bi après la barrière de sécurité deuxième ligne bi ñooñu ñooy nekk entre ces deux là ay garde-fou la ñuy doon tey di nga ko gis ci yenn milieu yi ñu mettre des garde-fous pour empêcher euh, kii ñëw mu bañ a agsi mais doo gis benn garde-fou buy dem parce que garde fou mun a déplacé wu donc ñooñu aussi c'est la même chose dañu war a nekk position défensive euh, pour que kii ñëw euh, war a yaa xam ak noo mën a ñëw mais am waroo faa am accès même bu dee jàmm nga fay waroo fa am accès ci zone boobu parce que yaa un risque ñooñu ñoo lay empêcher. léegi nag problème bi mooy bu fekkee ne ñooñu amuñu benn sensibilisation bu ñu def ci ñoom parce que ci mbirum sécurité dafay laaj toujours mu am brief maanaam bala ngeen a dem ci mission bi nga wax nit ki li mu war a def fi mu war a yem euh, même su nekkee ne amul une formation à cent pour cent mais danga ko koy wax lii nga war a def mission bi lii ak lii la laaj fi mu jëm lii ak lii euh, loolu dafay laaj bu ngeen paree aussi dafay laaj beneen euh, kii muy la ñuy wax débriefing ñii def ay erreur nga wax ne def nga erreur bi def nga erreur bi donc na nga ko nang ko rectifier loolu nit ñi aussi dañ ko dañ ko war di loolu mooy rôle bi nga xam ne moom lañ war a def léegi nag par rapport ak euh, li xew euh, su fekkee dañu am ay gros bras wala euh, ni ngeen koy tuddee nervi ñu ñu mu am ñu war a ñëw envers ñoom li ñuy protéger maanaam bëgg a dugg wala yu demee noonu am nañ disp war nañoo am possibilité repousser ñooñu mais bu ñu attaqué waruñoo nekk en attaque mais en défensif en position défensive ndax nag euh, li xewoon ñooñu lan la ñu bëggoon def loolu aussi comme on n'était pas sur on sait pas mais li ma mën a wax rek mooy amul benn dispositif de sécurité mobile bu ñu war a def te du am ce qu'on appelle euh, des des des des des, des euh, la ligne barrière une ligne de sécurité barrière mu warul nekk sinon professionnels yiy liggéey ñu du ñu xam nan la ñuy liggéey mën nañ leen a perturber et ça peut amener autre mais dañ leen di war di sensibiliser ci lii ngeen war a def pour permettre ñi nga xam ne ni ñoo nekk euh, les deux les deux autres lignes ñu liggéey loolu euh, mooy li nga xam ne ni mooy rôlu euh, gros bras ou kii de sécurité comment dirais barrière de sécurité jarul sax ñuy armé wu quant à la deuxième ligne après la barrière de sécurité mooy ñooñu ñu tuddi nga xam ne ni ñoo war a empêcher lépp loo xam ne day ñëw ci ci deuxième ligne bi mu egsi deuxième day am beneen lii mooy ñi nga xam ne nii dafay am beneen dispositif booy teg yi nekk ci zone d'attaque bi maanaam périmètre bi nga xam ne boo xasee bu dugg rek dafay am danger ñooñu ñoo war a couvrir ñoom dañuy couvrir ki beneen premier dispositif bi nekk ak euh, kilifa gi ñoom ñoo leen di couvrir en cas de ñoom maanaam tey bu fekkee ne barrière de sécurité bi gars yi bëtt nañ ko ñeneen ñi ay professionnels lañ war a doon ñoom ñooy war a nekk ñi nga xam ne ñooy jàkkaarloo ak ñooñu pour permettre euh, ki nga xam ne muy kilifa gi euh, équipe bi ko yor man ko évacuer parce que en matière de garde rapprochée de protect garde corps euh, duñ lay jàngal nga xeex xeex mooy li nga xam ne lu mën a mujj la ndax bu fekkee ne yow da ngay xeex ki nga yor boo mu bu ñu xamee ne yow da ngay xeex donc doo am possibilité di di di protéger sa sa sa VIP donc dafay am benn équipe bi nga xam ne mooy war a protéger VIP bi mu am ñenn ñoo xam ne ñoo war a couvrir ñooñu pour que ñu mën a def seen liggéey mooy deuxième ligne bi wax yi nga xam ne dañuy positionné euh, ci zone attaque bi am ñooñu aussi ñu leen di permettre euh, pour que ñoom ñu mën a def couverture boobu mooy ñi la wax ñooy gros bras yi mais su fekkee gros yi dañoo dem di attaquer bu boobaa. bu jaxasoo amee ñële sax li ñu war a def duñ ko mën def donc foofu fi mu fi bëgg a wax mooy Gros Bras dafa war a nekk en position wu nervi dafa war a nekk en position d'attaque en position pour empêcher euh, lépp képp ku warul dugg ci la zone d'attaque mu dugg fa ñi nekk ci position d'attaque bi dañu war a nekk ci ils doivent être des professionnels pour que ñu mën a permettre euh, équipe bi nga xam ne euh, ñoo nekk ci la zone stérile Euh, muy euh, ñi wër kilifa gi ñooñu bu problème amee ñu war a évacuer kilifa gi ñu mën ko évacuer ci ni ni nga xam ne ni techniquement moom lañ leen ko jàngale